mbégte ànd ak yéen seen émission Kouthia Show tey ci àllarba gii di fas yéene nag ñaanal ñëpp jàmm yàlla dafa ñu jàmm soxna Mati lu nuyu bu baax a baax waaye tamit di la ziar waaye noonu la ñuy ko fee daal di nuyu àdduna wërngal këpp comme ni ñu koy waxee ginnaaw wax mu yegg sax yàlla la neex laataa ñuy door dañ koy santaat bu baax a baax euh, bi fii la table di leen di faram fàcceel seeni produit tëggal leen ko fii ba àddina yëpp gis ko waaye laataa loolu damay daal di bàyyi Abu Mouhamed mu daal di woy li nga xamante ne bi mooy programme bi di leen jox dig daje ba subaak jàmm yàlla bu ci kenn manqué yàlla bu ci kenn manqué la ci barke alxuraan. jërëjëf soxna Mati ñu ngi lay gërëm bu baax di sant tamit ci sa teewaay waaye di wax alhamdulilahi rabbil alamin sant nañ yàlla suñu borom bi nga xam ne moo ñu sàkk julli ci yonent bi Seydina Mouhamed paix et salut ak jabatu yonent tamit yàlla yàggal ñu yàgg fi lool ànd ak wér te yàgg fi lool ànd ak wér waaye tamit ñi nga xam ne ñoo dund àdduna yàlla yàlla xara ci àjjana gën a kawe mboolem sénégalais boo xam ne yaa ngi ci réew mi toog te sa xol neexul émission bi yàlla doon li tax sa xol di neex ñi nga xam ne tey dañoo nekk na ko yàlla teggil ñi nga xam ne ñu ngi ci bésub bànneex jàmm Sénégal am jàmm dëkk bi am jàmm àddina am jàmm ndax bu àddina amee jàmm Sénégal am jàmm yàlla yàlla defal jàmm tey ki nekk ci réalisation bi moom mooy Alaaji malik Ndiaye moo nekk ci réalisation ba feggoo ki nga xam ne mooy Alaaji Mansour Gueye ingénieur de son mbokk yi dañuy dem ci euh, ki nga xam ne moom mooy Abdourahmane Diouf Abdourahmane Diouf nag tey dafa géwélam bu ñu naan euh, Daawur euh, Daawur Mbaye Daawur Mbaye Daawur Mbaye Alaaji Daawur Mbaye moo koy yebal mu dem nemmeeku ñi nga xam ne ñooy arabisants yi arabisants yi nag am na benn wax bu ñu wax boo xam ne bu am solo la nee nañu kenn mosu leen nemmeeku te dañuy jàng ba sonn bu ñu paree kenn du leen orienté mu mel ne làkkum arab daal fii ci réew mi wax dëgg yàlla amu fi ndey amu fi bàyyi te ndaxam boo demee ci kilifa diine yi seen waxtaan seen biir yëpp arab la bu sëñ Muntaxa jógoon fii dem seeti sëñ euh, sëñ Babacar euh, Mansour si xaalis naa kulu euh, Tidiane seen waxtaan biir néeg arab nañu wax ndax dañu bëgg wax dëgg yàlla dundal li nga xam ne nag moom mooy culture euh, arab te culture arab tamit wax dëgg yàlla nekk na suñu euh, loo xam ne suñu bàyyi kilifa diine yi bu ñu wéetee seen biir ñoom lañu waxtaanee maam Abdoul Aziz Sy Dabakh radiyallahu taala anhu yal na yàlla yokk leeram daan na waxtaan ak ay naar yu bëri ci làkkub arab nga xam ne buy wax sax naar yi dañuy yaakaar ne moom arabisant la fekk moom arabam dafay leer arab yi day leer ak maam Abdoul Aziz Sy Dabakh yal na yàlla yokk leeram góor googu daal wax dëgg yàlla ay arabam boo ko doon san dégg da ngay foog ne ca arabi saudi la juddee yàlla ko yàlla defal jàmm fa mu nekk mbokk ñu seeti ki nga xam ne mooy Pa Géwal Daaru Mbaay ca ki nga xam ne nag moom mooy présidente des arabisantes bi nga xam ne moo ñëw fas yéene indi ay leeral ci lu tax ñoom ñu choisir seen candidat bi nga xam ne mooy Abdourahmane Diouf ajaratu euh, euh, ajaratu euh, ndeela bu mbay ñu sem seeti ko ajaratu ndeela mbay daawur mbay ah jongoma day nii mel wax fa dëgg yàlla Sénégal benn bopp la te kenn mun koo xar ñaar jigéen yi nga xam ne dañoo jàng di ay intellectuel dem ba fi nga xam ne mooy université bàyyib làkkub anglais teg ko fi bàyyib làkkub espagnol teg ko fi bàyyib français teg ko fi na ñoom arab ci boppam moo leen doy arab ci boppam moo leen neex ñu am ci xam-xam jàng ci am ci diplôme dem ci bi nga xam ne moom baccalauréat génn ba pare di taxawaalu ñoom tey loolu leen metti moo taxit ki nga xam ne mooy candidat Abdourahmane Diouf yebal ma na ma dama nga seetal ma arabisants yi nga wax leen ah. ñu wax la ma wax leen ñoom li ma bëgg ci ñoom bu li ma bëggee nekkee président de la شكرا شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله كنت سكيخة زوي أنت الأسيلي وسد الأمسات ما بيننا نينا وقف دق يالا نيجي سوغو كونتان تي كونتان بو أم صلو أنت في حبي وأنا في حبي وأرى ذكرى دواء نينا كن كنك للا نيخ موم ngay jàng te ngay bëgg a tekki yaa wax dati ax yi bak subxaana man xadd an batak nee na njiitu réew bu nekk jaar nga fii Sénégal waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo am diplôme arabe kenn mosu leen nemmeeku ay niitaraaki jamilatan xal bi yosoro bi man sëri kii nga xam ne mooy Abdourahmane Diouf nopp bi mu leen may ba leen bés bu toogee ci réew mi ñoom arabisant yi ki nga xam ne moo am diplôme français ak arab yi yooyu yemandoo wasadal amasati ma bay na na xiili ant fi xubbi wa ara zikra dawa an lil ali nee na ñoom arab bi buñ koy wax yëg-yëg lay doon ci ñoom bànneex lay doon ci ñoom xam-xam bi ngay am ci tubaab diplôme tubaab ñoom dañuy am xam-xam bu ko raw ci diplôme bi nga xam ne moom mooy arab wari dun duni axyaatil uyuni ndax wax te wax wax rek la te dëgg dëgg la te dégg-dégg la. subxaana man xad an ba tey. nee na lan mooy ndeyu. Hmm. yow nga jàng arab ba hmm. pare. kee jàng français. ñuy jël liggéey di ko jox ki jàng français jël ki jàng arab di ko nappaaje kon moom luy ndeyam. enriyé bëgg enriyé bëgg enriyé bëgg. wax dëgg yàlla jot na nag état yi daa dee bàyyi xel langue arab jox leen ci ay cër. ministre buy làkkab arab war ñu yóbbu leen ci ambassade yi war ñu yóbbu leen ci hôpitaux yoo xam ne malade yi dañuy làkk arab. kenn ku nekk la ngay làkk boo ñëwee ñu wax ceg ñoom anta fi xubbi wala fi xubbi wa ara zikra dawa an lil alamin nee na Abdourahmane bi def na lu kenn musta def mhm. Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Abdoulaye Wade defu ko Macky Sall defu ko amul ken ku ko def fataxilla oh. fataxilla fataxilla yaa xabibi wala ya yaa xabibi kat waa taxilla asaran yaa xabibi masaban waa yaa lil ali astaxillah bi xubbi wana xëy bii bii fi muy daanalee nee na wax fa dëgg yàlla ñoom mbégte bi ñuy am mooy bu ñu gisee kilifa diine yi mm-hmm. président de la république bés bu ñu amee président buy làkk arab intermédiaire dootul amati diggante président ak kilifa diine yi. sukkuran kilifa diine yëpp arab mm-hmm. la ñuy waxante seen biir. Mm-hmm. nga ne lan subhaana. man xadd an ba tekk ay nii. taraaki jamilatan jamilatan xal bii. wala ka di sóoroo. man géwal mbaayi. Mm-hmm. xam ngeen ne géwal laa ci ndey ak ci baayi. waaye ba may làkk dama dem seeti làkk arab topp ko. watakal ba. fa xabibi suura kan mën na Abdourahmane Diouf wana xarxaar tallabaana wuttakalluuna kazabaan aalawuma kalluuna wa mazaan sakakal balbal bi xiyaali baxanan mun la anta yaa axla baana sukuran sukuran baana sukuran sukuran baana musalkilan baana sukuran sukuran baana sukuran musalkilan baana sukuran sukuran baana sukuran sukurgilan baana sukuran abduran baana sukuran musalkilan baana abdourahman baana sukuran sukuran baana sukuran يعمل البالة شكرا مولاي مولاي بالة شكرا إن الضريح لروض القطب ذات أبرار Joyeux anniversaire à Aïcha Sambou yaayu bébé Rama depuis Kër Massar euh, baax yaru teey dundal wéral amal jàmm di la ñaanal tamit yàlla mottali say projet yëpp yàlla dafa la jàmm joyeux anniversaire à ma sœur Aïcha Diawara doomu ndey Aram Thiam depuis France longue vie santé bonheur à Aïcha Diawara euh, di nuyu tamit waa résidence Le Bélier yëpp depuis kilomètre 50 madame Diongo et monsieur Diongo yàlla na yàlla defal jàmm ak kenn du jàmm et tous les enfants yi nekk foofu ak ñoom yàlla defal leen tamit ay xew yu bëri. Euh, joyeux anniversaire à Daba Diop taalibe Serigne Fallou depuis Kaolack longue vie santé bonheur et beaucoup de euh, bonheur à Daba Diop. di nuyu tamit bu baax suñu xarit boobu nga xam ne mooy Lili Création Fashion euh, nekk foofu ca 5 au boulevard Balbès en face métro ligne 4 et 2 ma ngay préparé nag inauguration salon bi ci mois de décembre bi incha allah le premier wala le deux nañ koy jàpp waaye waaye xam naa ne daal lu rëy lay doon loo xam ne ñëpp daal ñu ñaan ñu fekke ndax bés am solo la Lili yàlla ko yàlla defal jàmm tour de famille organisé par. baxal ca kanam ak waa oh, baxal yëpp le 10 décembre lay am lecture de Coran lañ fay def waaye tamit waxtaane mbokk ak cosaan di si invité képp kuy uh, doomu xurbaxal yéen yàlla defal jàmm ci bés boobu ñëpp fekk ko mbokk yi assemblée nationale suppléants yi mooy ñi nga xam ne yaakaaru ñoo na dañ doon ay député parce que xam nga dañ dem ba ci biir suppléants yi liste suppléants yi jàll ña ngay toj assemblée nag suppléants yi ña ngay toj assemblée nationale ambiance ba fa am ñoo ko fa indi actuellement nag kii nga xam ne day ñëw di wax député la waaye waxam ja dañ leen bàyyi ngeen seetaan vidéo ba pare pour ñu ñëw ñëwaat ci parce que lu ñuy wax fi rek dañ bëgg ngeen xam ne à Kouthia Show lépp lu ñu fi def rek dafa am voilà gis ngeen vidéo bi nañ dem nañ nañ nañ dem nag seeti li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, ci assemblée ba ñu seeti ci assemblée ba moom nan la ko dundee moom waaj ndaw si ay pour njëriñu ci ndax mën nañoo wàññi lu bari ci département bi monsieur le ministre ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppaleen ci piste piste kii bi piste de production ngeen jàppaleen ci piste de production ndax dëkk ba dëkk ñun dindi si ngom bi nga seex si ngom bi yéen bu leen ma kii waaye ñu duggal ma tip taw encore waaye bu leen def loolu waaye may leen ma waaye ma wax normal sama temps bi ngeen bëgg a gagné waaye bu leen ko def. député suppléant. fi ñu ñu demande de des de passage pour notre communauté. Nous demandons aussi la réflexion de la, réflexion de toutes les dispensaires de notre département. ah. ah. sinon ban. waaw. la réflexion des routes barrées la réflexion des routes barrées la réflexion de tous les dispensaires de tout. de tous les dispensaires la réflexion waaw la réflexion de tous les dispensaires et de kii des des des des monsieur le ministre nous demandons nous demandons que nous demandons que les routes waaw suppléant assemblée ma bàyyi ma pare de. Ah, waa APR ku commencé dama ne su ma sàq ma sama si ngom. à l'État. Eh, nous demandons à l'État de fabriquer toutes les routes nous demandons à l'État de réfectionner les dispensaires. ah si ngom ah, ah, nous demandons à l'État de tout faire pour réfectionner les routes. nous demandons à l'État de réfectionner les dispensaires. nous demandons ah. au gouverneur. de nous donner des subventions. Nous demandons à l'État de fabriquer les routes. Nous demandons au gouverneur de donner des subventions. Nous à l'État de nous aider. mu laal te tuuma ndax yàlla naa la seel mbokk yi am nañu mbégte ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan rawatina yi nga xam ne ñu ca bitim réew di ñu bàyyi xel ci suñu euh, papa ju baax ji nga xam ne nag moom mooy Cerno bu euh, di xalif bu Bambilor ñu ngi koy ñaanal tournée bi nga xam ne moom la nekk yàlla defal ko ci jàmm defal ko ci tamit euh, ndam ma nga noonu moom Cerno ñu ngi koy ziar ko ñaanal jàmm bu leen fàtte ne waa Rëfule nag le 25 bi mooy seen Euh, jotaay boobu nga xam ne nag euh, xalif bi dana ci toog ànd ak ñoom gunge leen ci li nga xam ne moom mooy euh, fexe ba ñuy yaxanal li nga xam ne nag moom leen di jox ci financement yi pour mën cee génn Serigne Abdoul Ahad Fall nekk ca Yoff Apexi en face immeuble Baye Omar Niass di footballeur bu mag boobu en face këram boo fa wootee ci 77 316 50 39 nit ku yàlla baaxal la suñu xarit bi yàlla yàlla defal jàmm sëñ Abdou Lahad Fall daal wax dëgg yàlla yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram jàmbaarul islaam ngi noonu borom xale mu bu neex baa ngi noonu yàlla ko yàlla defal jàmm neex a jubal a ngi nii yàlla yàlla defal jàmm 77 300 316 50 39 kii yàlla ko yàlla defal jàmm euh, nee na ma ku bu ñuul am na waaye lépp nga ci alxuraan science lépp technique lépp lu alxuraan amul lu mu lu mu munul kon daal moom yàlla may na ko ci baat yàlla ko yàlla jàmm may ko fan bu gudd ak ak wér yaram Euh, di ko ñaanal tamit yàlla jàppale ko bu baax ci li nga xam ne moom mooy taxawaay ci taxaw di jëmbal doomu aadama yi Serigne Aliou Diop borom xalima gi moom mooy organiser cant bu mag ngontu maam Cheikh Ibrahima Fall delloo njukkal borom euh, dina baax lool euh, di ci sargal Kouthia tamit TFM le 7 janvier foofu ca Malika cité Sonatel bés boobu nag xam naa ne ñëpp danañ ca ànd dem ndax sargal Kouthia bu am solo la Omar Pène tamit 33 de carrière 33 ans 33 33 ans de carrière waa AFSUD dañuy sargal Kouthia le 24 décembre foofu ca cercle message officier ñuy wax nag na ci ñëpp teew parce que Omar Pène daal moo def choix bi ak Afsud ne wax dëgg yàlla sentir euh, euh, na Kouthia daal ñu décorer ko ci bés boobu sargal Kouthia tamit ci li nga xam ne moom laay jëf ci moom ba musta ñaaw lépp rafet moo taxit te ñuy gërëm bu baax Omar Pène et le super jamono waaye tamit waa Afsud yal na yàlla defal jàmm waaw AKF le général du président Macky Sall euh, Pape Paye Euh, euh, papay euh, le Cheikh Ahmadou papay Cheikh papay les jumeaux moom mooy papay Cheikh yi moom yàlla ko yàlla defal jàmm moom ki nga xam ne mooy Aake Abdou Karim Fall di le général du président Macky Sall ma ca itali moom mooy papay Cheikh benn doom bi Macky Sall ko tuddee Cheikh Ahmadou Bamba ak Macky Sall nekk ca Italie Pescara hôtel Méditerrano Clubes ak le directeur général Maximo Maximo yàlla ko yàlla defal jàmm Maximo Cacciano moo leen di jox salle chaque année lu ñu bëgg foofu di ko def ci jàng ak lépp rek moom moom moom Maximo da koy def chaque année nag mu def ko gratuitement pour di def sant euh, wax dëgg yàlla maam soxna jaara le 3 décembre incha allah soxna sant euh, sant soxna jaara Bousso le trois décembre incha allah foofu nga xam ne moom mooy ci hôtel bu mag ba te borom hôtel bi di Maximo euh, Cacciano wax dëgg yàlla di ko baax mu ngi nii ak fotom moom nag tubaab bi dafa am doom bu bu góor tuddee ko bàmba doom ji Cheikh Ahmadou Bamba la ko tuddee kon yàlla na ko yàlla defal jàmm tubaab la boo xam ne daal ku bëgg lislaam la ku bëgg sénégalais yi nekk ci dëkk boobu la c'est mon ami il s'appelle euh, Maximo Cachano yàlla ko yàlla defal jàmm mbokk yi Alaaji Malick moo nekk ci réalisation bi Alaaji Mansour Gueye moo nekk ci ingénieur de son ba assemblée nationale kii nag du suppléant Adja Wara Sarr am na lu ko métti jiite assemblée bii moom mosut a xuloo benn président Moustapha Niass moom moom moo nekkoon <laughs> bête noire am waaye wax dëgg yàlla Moustapha Niass dafa a saar mu Moustapha Niass da doon yàkkamti a saar ñëw ba mu ree waaye kii kii nii <laughs> borom dagana gii waala waala bii daal wax dëgg yàlla saloon na Woré Sarr Woré Sarr nag ne ne loolu day dakk ndax nuyoo ak avant muy pare rek sonore bi na ko sa temps jeex na li ñuy wax nag dafay am preuve preuve kon mbokk yi gis ngeen ko ñu dem xooli a saar ak ki nga xam ne nag moom mooy euh, président assemblée nationale seen coow nan la demee. te nag ku amul yàpp boo amee ñebe wat say mën a jàpp nag mu defal sa yàq ma wax ni yow tam doo ma bàyyi yow waaye lu mën a def. député Ware Sarr salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu euh, di leen gërëm comme que temps yi nag moom dafay gàtt damay profiter rek wax li nga xam ne moom laa bëgg wax ñebbe bi buñ ne wàññi nañu ñebbe bi dara dara dara dara dara njëg bi fa mu nekkoon tey la gën a yokk lii ñuy wax ne dañ koo yokk Abdou Fafa mii taxaw nii li mu wax ne dañ koo yokk dara amu ci dañ koo wàññi dara amu ci njëg li tey waxuguma de. yow lan la yow damaa waxugum. heure bi moo jeex. ah heure bi nan la mën a jeexee ma salaamaaleykum ñebe bi lii nga ne ma jeex na damay eggali de yow nag xaw ma la ah yow lan la <laughs> déedéet kay dama ne dama ne wax. parce que boo ko ko seen lii dafa paan dafa paan de bi yow ngeen defar ko de ndax man buy paan sama kaw lay paan ku ñëw mu normal muy paan sama kaw dama ko dul nanguti nag waaw dama ne am na loo xam ne tey duñu ko nangu njëg yi nga xam ne dañ koo wax ah waa li jàmm li mbaa jàmm la man ko man tàmbali gu ma sax nga ne bëgg maa dagg dama ne njëg yi nga xam ne dañ dañ koo wàññi njëg yi nga wax ne dañ koo wàññi wàññiwuñu ko benn yoon parce que njëg yi ci boppam waaw parce que xam nañ ne man xam nañ ne man sama wax moom day day day day saf kaani moo dañu koy dagg dama ne njëg yi ñu wax ne dañ koo wàññi wàññiwuñ ci dara teel a gën a yokk te ñi nga xam ne ñoo wàññiwul kenn mënul leen dara parce que lañ ko jëndee woon doo jëndee téeméer jaayee jaayee juróom fukk mun ta madame s'il vous plaît waaye yow waaye yow lan la xam nga dañoo bokk yoonu Dagana gënoo maa xam fi nga dëkk njëkkoo ma ci politique damay wax sama waxtu jeexagul dama ne njëg yi nga xam ne loolu la ñu bañ a dégg njëg yi njëg yi nga xam ne dañu waxoon ne dañ koy wàññi wàññiwuñ ci dara dara dara dara dañ ci wàññiwuñ ñoom nag li ñu bëgg mooy kuy ñëw di wax. s'il dama ne pele ak baña a pele xanaa man ci mbir bi ci man lay sonné xanaa ci man rek lay sonné man su ma jëlee kàddu rek mu sonné ah loolu du yoon. yéen waa APR nag yéen a ko déréglé yéen a ko déréglé tey yéen a ko déréglé ëllëg dama ne njëg yi nga xam ne moom ngeen wax ne wàññi ngeen ko dara dara dara nañ ci wàññiwul buñ ko wàññi woon tey kon dëkk bi ñëpp yëg na wàññi nañ ko madame s'il vous plaît madame ak monsieur laa yemale dama ne madame ak monsieur laa yemale du paane sama kaw saa yu ma rek mu paan sama kaw mu déedéet heure bi jotul dama ne heure bi jotul njëg yi ngeen bañ a dégg njëg yi nga xam ne dañu xool nañ ko wàññi wóor na yàlla wàññuñ ci dara buñ ko wàññi woon man war a saar maa ñëw taxaw fii na na na dagg na dagg sama yoon nga mel gaar dama ne dama ne njëg yi nga xool ne dañ koy wàññi Macky sàll wàññu ci dara dara dara dara doo jëndee téeméer nag jaayee juróom fukk bu dee loolu lañ bañ a dégg moo tax muy sone na dagg dafa ñàkk raay bu train buy dem gaar na dagg ma pele bi kay jeex na sama yoon nekku ci saa yi ma ñëwee rek mu paan sama kaw. ci man lay sone nga ma ne ku ne récréation dama ne eh njëg yi nga xam ne dañu dañ ko wàññi wàññi ci dara dara doo jëndee téeméer jaayee juróom fukk ñoo lànk ñoo bañ su ma ñëwee rek mu sonné foo ko teg du ma ko nangu tey ma ne na dagg. Muhammadu Rasulillah sallallahu ala Muhammad Bon Nexbet, profitez d'une vraie sensation. Une vague d'émotions. Une poussée d'adrénaline. Le goût de la victoire. Êtes-vous prêt Découvrez tout cela et bien plus encore avec OneXBet. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Jeu autorisé par la LONAS aux plus de 18 ans. المحيمن العزيز الجبار المتكبر شيبة الحاشم عبد المناف حسين كلاب مرتكاب سيد الكونين وثقلين حاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد رسول الله mbokk yi ñu xamal nag li ci des bëritul ci waajal li nga xam ne mooy màggalu njarle bi incha allah le 3 décembre nañ ko jàpp ni ma ko waxee xalif général ba ah, di sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kulu murid ak sëriñ Mbaye si Mansour xalif général des Tidianes joxe nañu digal nag wax dëgg yàlla pour bés boobu nag ñëpp dañ ciy teew waaye xalif bi nga xam ne nag mooy xalifu amar amar yi nag nekk ca njarnde moom ci boppam nag euh, joxe na tamit digal ngir ñëpp mën a teew ci bés boobu nga xam ne ñu ngi koy waajal te wax naa leen ko fi ne nag euh, sëñ Muniru dee na ma ne abu bi na ko naam mu ne ma gëlëm ne danañ bàyyeeku euh, le 30 novembre bi danañ bàyyeeku ñu dàqale ñu ñëw fii nga xam ne nag moom mooy ci Sénégal xar yeeg béy yeeg ginaar yeeg picc yeeg lépp daal ña ngay koy waajal ak li nga xam ne nag moom mooy euh, fruits ya ña ngay bàyyee yi Maroc yi jugee ca Pout yi jugee ca Casamance daal xam nañu daal consommé local dana fa am te mbana yi daal dana nekk mbana yu doy waar te incha allah lépp dana ànd ak bànneex ak jàmm ak salam ñu waajal li nga xam ne moom mooy euh, njarnde di euh, Euh, dajeek euh, kilifa diine yu bari dañu daje nañ fa woon ci bés boobu moo taxit le 3 décembre ñu fas yéene ko màggal lancement officiel reflet réseau des femmes leaders derrière Thierno euh, Thierno Amadou Ba xalif bu Bambilor le 25 décembre à partir de 9h foofu ci théâtre Daniel Sorano yàlla yàlla may ñëpp ñu fekk ko te nag mën cee taxaw nag suñu jigéen yi nga xam ne yàlla may na leen xel comme 2022 journée berndeel di kuréel maayu bu ak yaas samedi le 26 novembre lay am yàlla yàlla may ñu ñu fekk ko mbàccum gerte gi tamit incha allah bu leen ko fàtte le 25 la ajuma bi ak samedi bi foofu ca xel xelkom ngir mën a nag jëriñoo li nga xam ne moo nekk ca toolu sëñ Saliou Mbacke yi kii nga xam ne mooy xalif bi di sëñ Cheikh Saliou Mbacke joxe ci ndigal na ci ñëpp teew ndax bés bu am solo la mbokk yi diggante bu doy waar ngi nii président Macky Sall ma nga woon ca Qatar Karim Wade ma nga woon ca Qatar Macky Sall ca officiel ya Karim Wade ca supporter ya tey boo liiree ci journaux yi nee nañu Karim stratégie lay def wara dafa bëgg a jaxase carte gi ñu dem seeti Omar Réew nga xam ne apéris la Baye Fallou Macky Sall la ak ki nga xam ne nag moo nekk ca parti démocratique sénégalais nan lañ dundee li nga xam ne moom mooy Qatar boobu ci politique. kana dangay liggéey foofu ñuy jaayee carte téléphone yi. waaw fa liggéey temps yi dañoo ñoo ma sponsorisé temps yi quoi. ñoom say kari nañu de. yaa couleur yi dafa baax day dundal day dundal bët. Ah. couleur yi. waaw waaye couleur bu lëndëmee rek dangay xalaat lëndëmu at li àllakira. yàlla tere yàlla <laughs> tere lëndëmu <laughs> àllakira ngay xalaat. yàlla tere yàlla am na couleur yoo xam ne du couleur doomu <laughs> aadama. Ah. couleur bukki la. ah couleur ah, eh, couleur bukki la. Eh, ndey eh, naka te maa ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah ay président Macky Sall yàlla fi yàgg ci amin Marème yàlla yàlla guddal faanam amin yaa rabbi seen taaw Amadou yàlla ko yàlla defal jàmm amin yaa rabbi dem ci kanam yeewu Sénégal dem ci ndaare ku mu nakkari ngay gaz nga toog di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal bépp kilifa diina kilifa aada yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ak wér di jiital si nuyoo bi Mamadou a Laye ak ahlu bayt rasulullah ca Cambérène di leen ziar bu baax dellu siwaat nag comme ni ñu koy defee saa ne Omar Rew la àndal ak soxna Jaara euh, Omar nuyoo da nga war a correct dama lay nuyoo naa sànq nuyoo woo de dangaa tëb wax Sénégal boo yeewoo da nga war a wax bonjour Macky jeeg na. ok keneen ku ko nuyuwul nag defoo cër yàlla bu ñu waxee nit ki cër da nga koy nangul cër bi ku xëy nuyoo Macky yàlla mere na la parce que yàlla nee na ñii ñii ñoo ma représenté si suuf kon lii ku kii kii kii kii. ki ki ko bañ a def kon la mooy dagg di kasan te mënu ci dara Macky tey Macky suba Macky génnaa suba boo suur Macky jërëjëf soxna Diarra dam lay bàyyi nga nuyoo euh, daal di présenté ñu soog dugg ci waxtaan bi. Ndeye maa ngi lay nuyu di rafetlu invitation bi di la wax ne la sañse nga nag. sañse nga trop sa orange baax na. tudd naa sa noir <laughs> macha allah. maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy El Hadj Malick mi nga xamante ne mooy yore wàllum réalisation bi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu euh, El Hadj Mansour El euh, Hadj Mansour di nuyu suñu monteur bi nga xamante ne moom mooy <laughs> Youssou di nuyu waa kawoon yëpp di am sama xarit bi mooy nuyu na di ko fàttali sama bopp di ko wax ne ko gëj naa koo dégg قوسي كلاب مرتداب سيد الكونين وثقلين حاتم النبيين وإمام الكل مرسلين سيدنا محمد رسول الله mbokk yi ñu xamal nag li ci des bëritul ci waajal li nga xam ne mooy màggalu njarne bi incha allah le 3 décembre nañ ko jàpp ni ma ko waxee xalif général ba ah, di euh, sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général kulu murid ak sëñ Mbay Si Mansour xalif général des Tidiane joxe nañu digal nag wax dëgg yàlla pour bés boobu nag ñëpp dañ ciy teew waaye xalif bi nga xam ne mooy xalifu amar amar yi nag te nekk ca njarnde moom ci boppam nag euh, joxe na tamit digal ngir ñëpp mën a teew ci bés boobu nga xam ne ñu ngi koy waajal te wax naa leen ko fii ne nag euh, sëñ Muniru dee na ma ne alabu ma ko naam mu ne ma gëlëm ya danañ bàyyeeku le 30 novembre bi danañ bàyyeeku ñu dàqale ñëw fi nga xam ne nag moom mooy Sénégal xar yeeg béy yeeg ginaar yeeg picc yeeg lépp daal ña ngay koy waajal ak li nga xam ne nag moom mooy euh, fruits ya ña ngay bàyyee yi Maroc yi jóge ca Pout yi juge ca Casamance daal xam nañ ne daal consommé local dana fa am te mbana yi daal dana nekk mbana yu doy waar te incha allah lépp dana ànd ak banneex ak jàmm ak salaam ñu waajal li nga xam ne moom mooy euh, njarnde di euh, Euh, dajeek euh, kilifa diine yu bëri dañu daje nañ fa woon ci bés boobu moo taxit le 3 décembre ñu fas ko màggal lancement officiel reflet réseau des femmes leaders derrière Thierno en euh, Thierno Amadou Ba xalif bu Bambilor le 25 décembre à partir de 9h foofu ci théâtre dañu saraanu yàlla yàlla may ñëpp ñu fekk ko te nag mën cee taxaw nag suñu jigéen yi nga xam ne yàlla may na leen xel comme 2022 journée berndeel di kuréel maayu bu ak yaas samedi le 26 novembre lay am yàlla yàlla may ñu ñëpp ñu fekk ko mbàccum gerte gi tamit incha allah bu leen ko fàtte le 25 la ajuma bi ak samedi bi foofu ca xelkom ngir mën a nag jëriñoo li nga xam ne moo nekk ca toolu sëñ Saliou Mbacke yi kii nga xam ne mooy xalif bi di sëñ Cheikh Saliou Mbacke joxe ci ndigal na ci ñëpp teew ndax bés bu am solo la mbokk yi diggante bu doy waar ngi nii président Macky Sall ma nga woon ca Qatar Karim Wade ma nga woon ca Qatar Macky Sall ca officiel ya Karim Wade sa supporter ya tey boo liiree ci journaux yi nee nañu Karim stratégie lay def wara dafa bëgg a jaxase carte gi ñu dem seeti Omar Reew nga xam ne apéris la Baye Fallou Macky Sall la ak ki nga xam ne nag moo nekk ca parti démocratique sénégalais nan lañ dundee li nga xam ne moom mooy Qatar boobu ci politique. Euh, salaamaaleykum. sa sa kana dangay liggéey foofu ñuy jaayee carte téléphone yi. waaw liggéey temps yi dañoo ñoo ma sponsorisé temps yi quoi. ñoom day say kari nañu de. yaa xam nga dafa baax day dundal day dundal bët. Ah. couleur yi. waaw waaye couleur bu lëndëmee rek dangay xalaat lëndëmu at li àllakira. yàlla tere yàlla tere <laughs> lëndëmu <laughs> àllakira ngay xalaat. yàlla tere <laughs> am na couleur yoo xam ne du couleur doomu aadama. Ah. couleur bukki la. ah couleur ah, couleur bukki la. Eh, Ndeye. waaw loola saf. Eh, sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah ay président Macky Sall yàlla fi yàgg yàlla yàlla guddal faana. amiin yaa rabbi. seen taaw Amadou yàlla na yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi dem ci kanam yeewu Sénégal dem ci ndaare. ku nakari nga wax nga toog. di nuyu ñëpp ñëpp. di ziar ñëpp di ñaanal bépp kilifa diine kilifa aada yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ak wér di jiital si nuyoo bi Mamadou Makhtar Laay ak axlu bayti rasulullah ca Cambérène di leen ziar bu baax dellu siwaat nag comme ni ñu koy defee saa ne Omar Rew la ñuy àndal ak soxna Jaara euh, Omar nuyoo ayu waa ji la Omar Omar xam nga si télé nga da a correct dama lay bàyyi nga nuyoo Omar nuyoo nuyoo naa sànq kay nuyoo woo de dangaa tëb wax man su ma nuyoo Macky Sall kay nuyu naa Sénégal boo yeewoo da nga war a wax bonjour Macky jeeg na. ok keneen ku ko nuyuwul nag defoo cër yàlla bu ñu waxee nit ki cër da nga nangul cër bi ku xëy nuyoo Macky yàlla mere na la parce que yàlla nee na ñii ñii ñoo ma représenté ci suuf kon lii ku kii kii kii kii. ki ki ko bañ a def kon la mooy dagg di kasan te mënu ci dara Macky tey Macky suba Macky ginnaaw suba bonjour Macky jërëjëf soxna Diarra dama lay bàyyi nga nuyoo daal di présenté ñu soog dugg ci waxtaan bi Ndeye maa ngi lay nuyu di rafetlu invitation bi di la la sañse nag. sañse trop sa orange baax na. tudd naa la ko itam sa noir rafet na macha allah. <laughs> maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy El Hadj Malick mi nga xamante moo yore wàllum réalisation bi maa ngi di nuyu euh, El Hadj euh, Mansour El Hadj Mansour di nuyu suñu monteur bi nga xamante ne moom mooy Youssou <laughs> di nuyu waa kawoon yëpp dem sama xarit bi mooy nuyu na di ko fàttali sama bopp di ko wax ne ko gëj naa koo dégg mhm. Mamadou gi jaaxoo nga ga soo baaxoo loolu na gari koy andaa mi o gara ngaa xara faax na mi gari sa yoon newu ci man bu ma lijjat bu ma lijjat sa new ci man nday yeggalil kon nuyu nañ ñëpp Omar euh, question bi ma la jëkk laaj ñu gis rek coow li nga xamante ne am na ca Qatar boobaak léegi tey ji journaux yëpp xëy na rek ñu waxtaane ko ni ni Karim Wade ndax stratégie lay teg wala lan euh, ndax lu waral rek coow li nga xamante ne am na président Macky Sall dem na moom mu dem mais bës bi daal moo ko gàddu eh, lu waral wax noonu rek hmm. Karim kenn topp ko Karim ah. moo ñu um ah. Karim Karim dafa dugg rek bii bi moom dafa gën a changé lekk yi def góosu. kenn kàmmatul lu muy nuroo. kenn kàmmeewu ko de. kenn kenn kàmmeewu ko. dafa tàkko ci bunt bi ñu téye ko. mu nekk foofu naan waaw man la Karim man la lii dee waak noonu waak ay waaku caaka Macky Sall kenn mënu ko suul. suul kenn du ko teel kenn tudd leen Macky Sall yëgul sax <laughs> pour ay feeru ay dem supporter ay dem ñuuxu foofu ay Sall kaal yi mu ngi nii kaal yi mu ngi nii Macky Sall dafa. xale yoo ko bëgg jigéen ñee ko bëgg de. ñëpp <laughs> ko bëgg. Sénégal nag jigéen yoru ko jigéen ak góor ñoo ko. jigéen lu mu bokkul du neex jigéen ak góor ñoo ko yor. jigéen lu mu bokkul li wadd li muy def nii ay tappale la. Eh. moom defuñu campagne politique. coupe du ko Sénégal Sénégal benn bopp la mënu kar ñaar dafa waroon dem nuyu magam Karim Wade dafa waroon dem fekk Macky ko la ko toog ci loolu mooy dëgg c'est ça la hmm. la Macky bi mu ko gisee dafa eh, eh, dafa jaag na sax parce que la jaar mais de plus comme la fa mu fekk si que la koy wooy téléphone affaire protocole oh, la ma ne ndax pare rek te eh déglu nit ñi wax wax nga sa xalaat ba pare kon damay bàyyi soxna a na lan nga ci xalaat. cey fara wadd njaag daara wadd njaag ku ci songum xëy faris bu mag bi. cey cey cey cey lam tooro pour génn alwa su ko dem dafa bës Qatar dafa dem xolal bës bi nii la ko téye ci loxoom bi yéen ñi nga xamante ne da ngeen a dem sa président bi sa président sax yow laa tax di nga ci wéet dafa dem xale yi romb ko nii jëlal leen avion leen eh da nga may déglu yaa ngi may déglu yaa ngi may déglu waxoo dégg dëgg laa wax maa tay dem foofa xale xoolul ko lijjatiwul mu jëlaleen avion koy koole jëlaleen avion faale wuñ ko dem ca Karim di sinab ak moom di fa taw moom gis nga Karim da ngeen koy nanguli ko yàlla teg mu noppal leen ki ñaan fonkul muur yàlla may da naa soxor te da naa iñaan day sa émission bi commencé na am ay fen de fen commencé na am ay fen de ay dëgg fi am ko rafetal ko kilifa yi lay seetaan parce que li ngay taxaw di wax Macky Sall demul ay kale kale takku ko ñëw Macky Sall ka kale sax koo ñëw. li mu bëggoon de amu ko. président bu li mu bëggoon. bu bu bu bu bu bu Pays-Bas ñëwul. président yu bëri ñëwul. lan la fay wuti eh, xam nga lan la. moo leen um ginnaaw ñoom ñëpp a. moo ce que euh, baaxul woon daal ñoom ñëpp ñu booloo doole Lions yi dem ñoom ñëpp ñu supporter. lan la Macky def. ñëw na ak jabaram ak doomam nday Karim lu mu def Macky ñëwul ak jabaram ak doomam ankay ñoom lu mu def nday ñoom ñëpp kay lañ ñoom ñoo war a encourager Lions yi rek ñu bañ ko def nday fay daguma la dogguma la te bula bu la yàlla dog amiin yaa rabbi gis nga Macky Sall xalima lu fay um moo um moo um maa wax kenn du la ñaawal kenn mënu laa laa teg tuuma ndax yàlla la seetal Muhammadu Rasul international Nikin de Ziguinchor le premier ba le cinq lay doon foofu ci Ziguinchor hôtel Kadian Djouman ah, Kadian nekk foofu ci Ziguinchor ki koy jiite nag di Choice Korea mu ngi ciy woo ñëpp nag di xalamal salon boobu incha allah ah, le premier ba le cinq daal Ziguinchor day nekk en fête ànd ceeg tamit toutes les de Ziguinchor culture gastronomie ak aada cosaan lépp dana fa am kon nag bés yi yoo xam ne na ko ñu préparé mu nekk bés yu am solo moom fotom gi noonu ndaw si nga xam ne moom mooy Choice Korea la grande promotrice culturelle mbokk yi joyeux anniversaire à Aïcha Sambou yaayu bébé Rama euh, depuis Kër Massar foto mi noonu baax yaay euh, baax yaru tey dundal wéral amal jàmm ñu la koy ñaanal yàlla yàlla defal jàmm may la fan bu gudd ak wér gu yaram maam saw jattu di maam soble yaayu Léopold Mohamed Diop fan sa Kouthia la depuis Cambérène ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram jàmm ne mooy suñu maam ju baax di maam ah, saw jattu di gën koo xamante ci turu maam soble di yaayu Léopold Mohamed Diop ah, soppe Kouthia depuis Cambérène 2 maam guddal fan sa fan gudd wér gu yaram jàmm ak salaam di ko ñaanal képp koo xam ne tamit wax dëgg yàlla waxtu bi yaa ngi seetaan fii ci biir Sénégal ak li ko wër delluwaat njukkal tamit bu baax ki nga xam ne moom mooy Sophie légume euh, nekk foofu ca euh, zone de captage moom Sophie légume euh, anniversaire am le 10 la décembre bi incha allah ci kattanu yàlla le 10 décembre la koy def foofu nga xam ne nag moom mooy ci la terrasse fas yéene na ko ànd ak ay xaritam yëpp ci teewaayu tamit. Viviane ak ki nga xam ne nag moom mooy euh, Titi ak artistes yu bag yu nga xam dañ fa ñëw def playback euh, tamit nga Ngaaka Blindé ak tamit euh, ay rappeur ci teewaayu Balla gay ak ki nga xam ne nag moom mooy Ama Baldé ñoom ñëpp dinañ ñëw ci anniversaire boobu nga xam ne mooy anniversaire Sophie légume nekk foofu ca zone de captage mbokk yi ñuy am mbégte ak contentement bu yaatu nag di gërëm képp koo xam ne yaa ngi ñu seetaan ah wax dëgg yàlla war nañu fi benn vidéo boo xam ne de foogoon naa ne wax dëgg yàlla <laughs> suñu waa ji <laughs> ah, xam nga nag moom alaaji Malick moom suñu xarit la waaw waaw kooku koy séeri kumba suñu xarit la wax dëgg yàlla alaaji Malick yàlla ko yàlla defal jàmm waaw waaw mais nag euh, période bi régie bi day sedd xam nga régie bi dafa am ay climatiseurs yoo xam ne dafay sedd te yemul ci benn kilim ñeenti kilim la te kilim yi ci suuf lay jugee seddaay bi bu la jàppee nag nga yeewu fajar gi nga ñëwaat encore fii dafay laaj nga euh, tàng euh, chauffage waaw chauffage chauffage bi nag euh, yaay xool rek bu fekkee ne euh, cuuraay yooyu foo romb euh, bu boo ko tàmmee nag sa tur mun naa changé mun ngaa doon njaay cuuraay <laughs> mun ngaa doon njaay cuuraay xam nga tur bee sell ndax boo ne alaaji Malick njaay waroo ci teg lenn <laughs> xam nga rek waaw mais njaay cuuraay moom <laughs> tur la boo xam ne daal bu ñu gisaatee vidéo bi danañ ko fi tuddee nit waaw njaay cuuraay war ñu jox ko émission boo xam ne dafa tudd <laughs> ah, émission ëtt ëtt ëtt ëtt cuuraay réalisé par Ndiaye cuuraay <laughs> waaye Ndiaye cuuraay waaye Ndiaye cuuraay daal bu ma jotoon ci vidéo bi danaa ko joxe léegi kon xam naa ne <laughs> soxna Kumba moo ko tàmmal euh, euh, cuuraay ba ba nga xam ne xet bi da koy topp Ndiaye cuuraay waaye Ndiaye cuuraay yal na ko yàlla defal jàmm mbokk yi ñu ngi dem nag gërëm ñëpp di sant ñëpp yal na yàlla defal jàmm may ñu fan bu gudd ak wér gu yaram gis nga sant bi di sàll ku ko sant doo doo doo doo tumuraanke sant sàll sant bu sant bu yiw la sàll nga sant ko ci réew mi sàll sàll ñu ko sant ñëpp wax dëgg yàlla dañoo sell te baax sàll SA2L boo ko santee da ngay am xam-xam da baax dangay ngay maanu da ngay am yërmande sàll yëpp nag dangay am xam-xam da ngay baax da ngay yaatu da ngay bëri yërmande xam naa am na ñuy cimtu suuf waaye. sàll sant bu sell la duggal ci saal bi eggal ci saal bi yàlla suñu borom sax keroog bu dalal gan yi ci saal bi na leen di dalalee kon sàll sant la am na yonent bu santoon sàll bu bari yonent demandé xam ne dafa yërëmoon askanam lu askan bi bëgg rek yonent bi fekk leen ci ñaanal leen ko mu fekk leen ñooñu nag dañ koo nampantal nampantal ba mu egsi ci sàll bu nekk Sénégal yàlla na yàlla def ba ñëpp roy royu kaay yonent boobu xam ne dafa santoon sàll te loolu moo nekk ci ñoom sàlleen daal yal na yàlla defal jàmm mbokk yi ñu tëj ak Omar Kouramaki euh, jàkkaarloog ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Serigne Bara Dolly bi nga xam ne démb seen débat bi dafa mujj a càng tey ñu eggale ko tàggatoo ñoom moom gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan rawatina sëñ Jili Mbàkke yàlla ko yàlla defal jàmm sëñ Jili bu sëñ Xaadim yàlla ko yàlla defal jàmm doomu Adja Mbène Lo bu ñu joti noppi gu ñu yàlla yàlla guddal fanam sëñ Jili guddal fan. I am back. Kuramaki ñëw na. Kuramaki I am back. ñëw na. Kuramaki I am jërëjëf honorable ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax dugub bi amati na solo. Euh, di ziar nag euh, ñëpp ñi am tane ñu ngi seetaan euh, tey ñu dalal fii rek doomu soxna bii di Serigne baara Euh, dolli démb euh, émission bi dafa amul suite moo tax ñu indiwaat ko tey mu jàkkaarloo ak Coura Macky euh, pour rek ñu ñu àggale débat bi. di nuyu ñëpp ñam te nag ñu ngi seetaan di souhaiter joyeux anniversaire Aïcha Sambou. Mhm. yaayu Rama. de la part de Kumba de la part de toute l' équipe ñëpp ñu ngi lay ñaanal longue vie santé prospérité dundal ba mu yàgg la say may di baawaan Serigne Bara Mbacke ay Aïssa ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di la nuyu di la bàyyi nga nuyoo ñu dugg ci débat bi. waaw maa ngi alhamdulilah mina ma marhaban wa bikan marhaban shukran dalika aw miina waltela umma islamique dëgg la jërëjëf Mbacke du ñu def rek du bàyyi kura Macky mu daal di nuyoo jërëjëf Nday maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la wax sa orange baax na yow sa orange baax na di nuyu nag sama sëriñ sëriñ Xafaayel Mbacke mhm. bu sëñ Fallou Mbacke yàlla na gudd fan lool te amiin yaa rabbi tey nag sama benn doom mooy def anniversaire. muy kan. Aïcha Samb. Mm-hmm. di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér mu di ko féetee at yu baree bare. di doomu lay kumba. ñu lay ñaanal di la wax. peace and love. Mm-hmm. happy birthday to you. Mm-hmm. à jërëjëf jërëjëf kon euh, nuyoo bi am na solo euh, mag yi du ñu def rek bàyyi euh, lu dul rek sëñ Bara question bi lay jëkk laaj rek mooy gis nañ ñëw Karim Wade barki démb rek ci stade ba foofu ca Qatar. mu indi ay eh, polémique yu bari ñenn ñi di stratégie lay teg ana ban xalaat tey ban jàngat nga ci am. waaw xam nga politique moom yaay xool rek fu mu tàngee nga teg fa sa loxo. Mhm. li Karim def nii buntu lay ut. te buntu la boo xam ne bu ci jaaree mun naa am ndëgër laay boo xam ne. dana tarxiis bu wàcc Sénégal moo xam li ne ci xelam ak nan la koy defee kon li mu ci jublu rek moo xam nan la ko tegee waaye ñun moom ñu ngi wax képp koo xam ne wujje nga boo ñëwee fii Sénégal doole ñu ci wujje gi dañ lay sant ndax Karim moom mënut a ñëw ànd ak ñay ndax ku la gàddaayloo génn la ci réew mi xañ la ngay gis say mbokk mhm. xañ la tabaski ak sa njaboot mhm. xañ la korité ak sa njaboot xañ la màggali xañ la gàmmu xañ la lépp mhm. boo ñëwaatee wax dëgg yàlla di nga ko xañ ànd ak moom man loolu am ci bu koy xelal waaw mais euh, est-ce du ko du ko yàqal comme li ñuy wax rek ne euh, bës bi da ko téy si loxoom da ko jël coow li bari euh, mu may ne rek bayra bi nga xam te moo nekk ci baay ba moo nekk ci moom mu ñëw coow li bari ñu fàtte sax président ak soxna Marème Faye Sall loolu est-ce que tamit du ko gën a yàqal du tax président gën ko mere xam nga man nekkuma ci waa ji waa ji waa ji président. man dama dama dama tudd turam sax. Mhm. ndax ku la jàpp moom tëj la ci kaso bi. man ñam naa. ñam nga xam naa kaso. Mhm. xam naa kaso de. Mhm. te fu mu ne nii man rek nañuy déglu. est que xam nga ne ñoom saa yuñ caayatale gis ma ñu ne daw leen déglu ko. fu mu ne nii bu ma tarxiisee ci erreur rek. ñu jàppaat ma delluwaat ma fi ma jëlee woon. dëgg kon nag. Mhm. comme que ñoom seen caabi nañu yor rek. Mhm. di déplier. Mhm. mel na ko yor kële minute. Mm. génn ñu tëj tëjji tëj tëjji tëj tëjji tëj tëjji kenkaayri yi nekk Sénégal yëpp mënut a fa am caabi. déedéet lu tax ah. <laughs> kaso ba kat man dem naa fa. néeg bu nekk ak caabim benn néeg dañ koy def téeméeri caabi. Mm. boo naree nag <laughs> kaso bu ne nga nar koo am junni caabi. bu caabi rusé da nga dem jëndi waat. tëjee rek. tëjee rek. ñoom loolu la ñu xam. moo tax dootuma wax wax joo xam ne dañu may sama sant bii. Hmm. dama koy sàmm. dëgg la nday hmm. jox ñaa ko cër lool nag mbàkke waaye dafay sama naataango. Hmm. mais Karim ku ko teree ñëw. président. kon président. Macky Sall loolu lañ wax. Macky Sall lu mu ko teree ñëw nañ lan waxante dëgg yàlla dëgg la bëgg. jotewut ak moom dara. lu mu jotee ak moom. mais Karim bañ ko ne ñëwal sax ñëwul yéen da ngeen war a bàyyi waxi Karim. Karim gisu leen ko guddi gisu leen ko bëccëg. est-ce que du dañ ko tere Karim Karim Karim te Karim ñëwul mais doo leen bàyyi Karim. est-ce que du dañ ko tere ak ñoom lan la ñu waxal mais ah, mais. mais euh, Macky euh, Amadou Abdoul boobu Macky Kumba Jaaram Mayram. Mm-hmm. da ngeen koy xeex. Mm-hmm. waaye yàlla moo ko fi teg. Mm-hmm. jal nag bu yàlla jal sànn ci matt gën fay ko wota baawatit. wota baawatit wota baawatit. kon mi ngoog. Euh, sëñ bi waaw wax dëgg yàlla man damay toog di mattatu. lu tax. wax dëgg yàlla bu fekkoon sant dañ koy summi. teg ko na ne mhm. ab beneen sant def li ngay def ba pare jëlaat sa sant bilaay kon nga toog ko defati dëgg la xam nga damay bañ ñu ne euh, sëñ bi wax na sëñ ba de ma nga ca kaw <laughs> ndongo ba waaw ma nga koy duma waaw waaw day ëpp day sant boo xam ne. mbàkke ba lay mel noonu kenn du leen ci dëgg la waaye gis nga ndaw si soxna si. Mm. sëñ bi amul nit sëñ bi amul nit. sëñ bi amul nit. sëñ bi amul nit. Mm. mbooloo bu rëy moo topp ci ginnaaw. amul nit. ah loolu damay bàyyi sëñ bi waay waay waay waay sant nañ koy mën a dundee waaye jox ko keneen ba ba xeex ba pare. ba xeex ba pare dara jëy la si ulillaahi mhm. gis nga kii. Mhm. naa fekk boo koy seet ci kii la fekk baax. amoon nit kii nekkul assemblée lu dul lekk fa ay màdd. Mhm. ay tol ay ñambaat. cag-cag yi dugg bi daal li ma lay conseillé. ñàkk kersa demal nga jàngi. man am na loo nga jàngi. jàngi lan. ki dégg na arab dégg anglais sax man français nga may wax. Mhm. man nee naa li ma nàmp kay laay wax. alors olof laa dégg kenn terew ko assemblée ko assemblée. yaay def buzz bi xanaa doo seetaan internet. si la wata baaw tiit. waaye yow man yaa tiit man waaye man tiituma yow yaa tiit waaye naa la xamal dara. sama làkkab anglais ak français ak yooyu yëpp sa yoon nekku ci. man ce que je sens c'est la c'est ndey man sëkk sa saasa la di. ndey kii tey bu doon keneen. sa saasa la di. dégg sëkk sa saasa la di. dégg nga waaw ah. pourquoi sa la di. parce que nàmp ma ko. c'est la di kay. namp ma ko. la wallaay aw ma ci benn dëgg la ko xale yi tooñee man nu ma ko xale lu luy sama. loolu namp la dëgg la Mbacke Balla ay sax wata baaba tiit dañ la koo sol rek. Mm-hmm. ce sa je dis ce que la fait. ni ko sentir daal nga koy waxee. ni ma ko ce que la dit ce la fait. wallaay am nga complexe mais moom anglais mi dara amul dara lu ci tegloo. yu ah? bokkul ndey ak yow yàgg États-Unis ak dégg anglais. doomu baay lay laaj. ndey I am going you okay. Hmm. good. Hmm. how are you Saturday night. how are you mm. saturday love mm. you Macky wata baaba ay peel yu gaska eh, ay dégg nga loolu loolu daraja doo xam ne mhm. mën nga koo wax ba ñu ci nomba tànk mhm. man ce la ça c'est la France c'est a pas de problème c'est la France yu bon c'est la c'est la c'est la faute de de de de la c'est la peine la la la France yu bon c'est pas la peine moi moi c'est moi c'est le vilain barki yonent bi moi moi c'est le mos c'est moche ah, toi c'est le vilain moi c'est le vilain Abdoul boobu moi c'est le plus vilain dañ koy gis moi c'est le kii di làkk anglais kii français moi c'est le plus vilain ah! moi c'est le vilain ah! c'est le vilain kon toi délinquant délinquant bandit c'est jigéen mais assemblée yàqu na ay madd ay cag-cag ay kew ay soccu ku ko fi indi ku fi indi maase commencé for ndombo ci assemblée. ku fi indi keew ah, ndombo. ndombo ndombo ana ndombo ndombo ci mbër nañu ko doon xool war a ci kii waaye jigéen bu takk ndombo moom. Ah, wóor na yàlla mystique la fay indi. nday hmm. lenn rek ndax ci nday a wax de. waaye ndombo yi ma gis moom 21 takk. 21 tëjukaay. dafay dafay dafa tardé bi mu ñëw dafa takka takk. nombo yi ak sangu bi. waaw c'est pas la peine <laughs> c'est pas la peine. kon assemblée la c'est normal. ce que le dit rien. Mm. ce que le rien. français yu bon toi là. toi mm. là toi femme. toi toi toi femme toi toi mérite pas député. Ah, Pourquoi ah. Pourquoi tu vas me répéter C'est moi le vilain. Ah. C'est moi le vilain. C'est moi le vilain. C'est moi le vilain. C'est moi le vilain. C'est moi le vilain. Tu ne mérites pas député. Il se mérite pas député. I love you Macky Sall. Monsieur, il se mérite pas député. C'est pas monsieur, c'est madame. Sëñ bi kan la yow. Monsieur Ndeye. Madame. Ruus naa la nag. <laughs> kan ngay wax monsieur. ah bul door sëñ bi. déet eh, kan ngay wax monsieur. sant bi ngay xeex. yaa may wut de. mbàkke bala dama lay def golo de. waxal ma dama moom ba pare. dama lay saxal génn yaa golo dara wuti leen. sa xef bi mel la paradis. du ma la wax dara Mbacke. c'est que le vilain. Mbacke Balaye sax c'est que le vilain. du ma la wax dara Mbacke Balaye vilaine femme c'est que le vilain femme. bu doon keneen dama koy kiil. toi brebis. ah. toi poulet toi visage poulet. toi mbaam. toi xuux. mbaam laay niróo. toi tout. Euh, monsieur. madame y' a pas de problème pour ne la waroon keneen dama koy teel nday fay. kan ngay kilal te Mbacke ay Mbacke la sant Mbacke Mbacke la sant acca. Ah, ah, abal ma man naa demaale sax maa ngi leen a xaar fële ci buntu eh eh foo jëm. dama koy teel